lan bikum fa rocc fa deltu ginnaaw fa génn ba set wecc ci article 87 ba moom njiiti réew mi Macky Sall allah te mooy yéen a kaay ñu ko xamal député opposition ba société civile bi fa ñoo xaroon seen tànk tubay ne coppite yi njiiti réew Macky Sall bëgg a andi jaara ko ci article 87 ci assemblée ngir ñu wote ko fa ñoo lànk ba tëdd ca naaj wa ndax fa ñoo wax ne loolu suñ ko defee fay jox sañ sa njiiti réew Macky Sall mu tas assemblée nationale saa bu ko soobe léegi ñoom député yi xanaa fa ñoo dof ba di ko wote si du quotidien ne assemblée nationale député fa ñoo bañ ne duñ daas paaka jox ko njiit réew Macky Sall mu rendi leen kon ñoom fa ñoo bañ a xaru Abba Mbaye taxaw ne ñun xanaa fa ñoo dof bay wote lii tax njiit réew Macky Sall tas assemblée nationale Abbas Fall député yeewi ne lii fa garaaw waaye fii moom duñ ko nangu docteur Malick Diop député benn bokk yaakaar na leen hëy faa bëgg ngeen dal jëwriñ ji ñu dénk wàllu yoon fay retiré rocci coppite yi ci article 87 ko abandonné génn nañ ca vox populi ne faa leen di wax xam ngeen lan moo tax njiit réew mi deltu ginnaaw ci article boobu yow fa ngay xool ginnaaw bu mu fi waxee ne dootul bokk ci wate 2024 yi moom njiit mi sénégalais yu bëri di ko tàcc mu xam woy rafet léegi nag fa bañ a yàq woyam wu rafet woowu xajamal cere ji le quotidien yéen kaay na ko moo taxit tasal na boppam projet ba les ko yéen a kaay na ko pourtant sax même député benn bokk yaakaar mi askan wi ñoo xeex ak moom tax mu bàyyi de waaye bëggoon naa def ñetteelu mandat faa bëgg mu leer assemblée nationale tamit sëkkatal bi ko gaañu sëkkatal moo tax mu daw deltu ginnaaw 24 heures yéen e kaay na ko gars kay fañ koo boloke ci assemblée wala fajër yéen e kaay na njiit réew mi fa bëri ay pexe de nu fexe ba faagaagal assemblée nationale ak naka noonu faagaagal kujje gi opposition bi les sëkk yéen e kaay ne coow fa bari moo tax nguur gi fa daw waqe deltu ginnaaw ci article 87 ba ne waaye xam na beneen article boo xam ne alxamis lañ koy wotee mooy Karim Wade ak Khalifa Sall ngir bokk ci wata 2024 yi leer la nen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne Benno Bokk Yaakaar xam benn mbër candidat 2024 ñoom ñëpp ñu ànd ci juboo loolu mu mënta nekk sax yaaw fangaay xool ñu bëgg a nekk candidat fa ñoo bëri discipline groupe ba respecté tuñ ko ci gàttal benn faw ñu réeroo ci wata yi l'observateur moo ñu ko xamal info yéen a kaay na ko xay yow xanaa fa ngaa li xew ñoom fi mu toll ni ña nga ca ak réeroo di yaaw seetal ministre conseil Abdoul Aziz Diop fi mu toll nii fa mere njiitëram Macky Sall ba futt ndax fa wax ne keroog bi ñu dajee ñuy bind ñan ñoo bëgg a nekk candidat moom moo njëkk yëkkati loxom bindu ne man candidat la bi ñu paree njiitëram mi na ko baax na danañ la jël audience waxtaan ak yow ah ba fii ñuy wax ak yéen nee na man kenn xoowut ma te ña ngay xoo ñeneen ñi di leen déglu loolu nag du dëgg du yoon ba tax ca l'observateur fa wax njiitëram mi ne ko hëy faa bëgg ngeen bàyyi li ngeen di def nii yemale a lante fa ngeen a war a arrêté sama candidature wooma comme ñëpp comme ni ngeen ooyee Boun Abdallah Dionne Moustapha Niasse déglu ko kenn ci jege ñaale Boun Abdallah Dionne yi mel ni ko xooy suñu waa ji Boun moom waxut ne candidat la de moom fañ ko waxoon na ko kaay ñu proposé la nga nekk candidat pour muy clair ba tax bés bi yéene kaay ne Boun Abdallah Dionne kay fi mu nii fa jaxase carte gi Moustapha déglu na ko dimanche bi weesu Aly Ngouille Ndiaye nag ak Diouf Sarr tey ci talaata ji ci la leen Moustapha di déglu Abdou Aziz Diop na voilà léegi man nag fañ may xoolaan nii rek xanaa man faa ci bokkut mer naa critique yéene kaay mel ni ku naan ko déet bul a cay ànd te bu bopp fa waye di doo gañe de te buñ tasaaroowee ñoom ñëpp fa ñuy ànd dem waye di fañ leen di mbuqi de turbine yéen kaay ne waaye suñu waxantee dëgg am na ñoo xam ne wax nañ ne candidat lañ fa ñu bokk 2024 ci wote yi waaye ñooñu fa ñu foxantoo yi ndax ay xusmaa ñàpp lañ fa lay ne ndaa rek ndaare la jël seen kër yi sax mënuñ koo gañee waxuma la ak yi di leen fal te fi mu toll nii fanweeru doomu aadama wax nañ na ci mu toll nii waa këram ya ña koy tàmbalee weddi ndax Abdou Aziz a ngi ne fa mer ñu ne déetewaay député mi sax fañ ko weddi ca assemblée nationale ci article 87 boobu nga xam ne ànduñ ci woon ba tax yéen kaay bi ne kumpa ragal wala wekk gi gaañu defoon ci tëram Macky fa mel ni fi mu ni ma ngay dëñ de <laughs> leer la neen lu leer ba yegg ca nàññi ja mooy ne Ousmane Sonko du yàgg dara fan yi gaay fañ koy jàpp yóbbu ko kaso réew mi yéen kaay moo joxe xibaar bi <laughs> yaaw fa ngay xool matuwaay yëpp gaay yi jël nañ ko ba pare ña nga ca coowal jaare yolleeku dem jàpp ko yóbbu te li ni mel warta bett kenn ndax njiit réew Macky Sall fa waxoon ne bala moo demit dana faxe ba ñu respecté dogal yi àttekat yi jël ñu jëfee ko ba tey yéene kaay bi di ñu xamal ne El Malick Ndiaye bu Pastef procureur ba fa sàkku ñu yóbbu ko instruction maanaam àttekat ba bu toppee procureur bi fañ koy jàllale ca kaso donte nag audio bañ wax ne moo ko wax moom El Malick Ndiaye weddi ko ne du ay kàddoom la mu ñu xamal milliards ak ay un milliard ak deux milliards Sonatel moo leen ëpp doole moo tax ñu jox ko ko ka ñu jox ay raaya ngir sargal ko ci taxawaayam bu mooy Samba Ndiaye l'évidence yéene kaay ne calebasse d'or da lañ ko jox te lu ko jiitu joxoon nañ ko fi corridor ba ca gerte d'or ba tey l'évidence yéene kaay di ñu xamal na tafaa jong ña ko gardaaw yi ca kaso ga ginnaaw ab scandale tooxi doona bu am ca jëriñ ju ñu dénk wàllu miin ba tey laas yéene kaay fa xëy di ñu xamal tolluwaayu Air Sénégal borob boo xam ne fañ koo fay tax na fi mu toll nii fa ñoo teguwaat ca jawwu kenn ku ma njiit réew Macky Sall lay si ko yéene kaay fa dikk ñun ci taxawaay ak gis-gis ba mu xam te wax ko ca conférence bañ fa doon xamal te loolu lu baax la li baaxut nag te garaaw ba hegg ca lool vox li moo ñu ko xamal yaw fa ngay xool fa xam ab infirmier fajkat maanaam docteur rek boo xamante ne daal fa xam ku feebar ñëw ca moom mu koy faj waaye fa koo pikiir rek waaja doxee fa de faatu ñàkk bakkanam aay yëf yaa nga amee ca tuubaa moom fajkat ba nag teg nañ ko loxo ma ngi ca juróom fukki la am ak ñett biñ ko laajee nag fa wax infirmier la maanaam fajkat waaye nag nee na amagutoon autorisation maanaam sañ-sañ ngir faj doomu aadama ay waa ma ne foogoo ne fa ngaa waroon a toog ba xam autorisation doo di dem faj li ñuy wax théorie fa wuute ak pratique ci fànn yëpp nag sikk nekkul ci ne amoo woon yéen rey ko faj ko nga bëggoon waaye tafaar fekk na la ca léegi nag foo koy waxee abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér wóor aju ci réew mi ak ci bitim